di sant ñëpp di jégalu nag bu baax baax euh, suñu mbokk yi waa presse bi ci euh, retard bi di gërëm di sant euh, mbooloo mu fi ñëw tey pour fekk si tey conférence de presse yi di gërëm di sant tamit euh, coalition Yewwi Askan Wi ci seen teewaay wante ngeen may ma tamit ma gërëm ma sant tamit coalition Yewwi Askan Wi ci seen euh, taxawaay ak ci jàppale bu ñu may jàppale ci agression bu may dund nii ak tamit agression bu ñuy teg ci euh, ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders yëkkati seen kàddu jaarale ko ci xalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement lii conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu bu ñu fi wootee mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal euh, mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi dix ans ci ginnaaw dix ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen même rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax. Euh, xamuñ ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi. dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex troisième mandat ñu ne troisième mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen troisième mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan. ci troisième mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba troisième mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu bett dem yoonam président Macky laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd ci ànd si ak suma wajur bu lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa ngi yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci list député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat juróomi at ñu dawal ñetti at ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa door a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moo mooy indil torof torof yépp ñu may dugg tey ñu daal di jàpp dossier bi ne da indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma waa yéen wala <laughs> ngeen di wax waxu ngeen ma laaj man mii man maa man maa ne kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archives yi ñu ngi fi madame assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wajur nga soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu muy am nekk gu moon appel parce que soo gisee lu ñu la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay vingt cinq millions njabootu waajooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woyee mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay ñit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponk lu ñit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñépp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag dix ans ñu ngi may toog ci benn laa wax benn nerf bi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante quatorze sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd ji kooku moom daanaka soxlul sax ñu ci wax ñu ñu ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajo na leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinnee pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii dañ may àtte ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d' appel ba tey dañuy renvoi di renvoi di renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppuwul ak dëgg lu ko wax dëgg yàlla xaw ma nañ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal moom moom la ñu nàmp te damay pañ a wax wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon nag de 10 novembre dañ koy woo dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di wooye mensonge yéen waa presse am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 non ngeen le 8 octobre ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre décembre day am feetu Noël man catholique laa xam nga nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na datu 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire u papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di ngénte rek di du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko ah, monsieur ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi ñii nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga meme ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi te ñëpp a toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeekoo ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk. ñu nekk di wax di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp ñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci sal bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8 heures et maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10 heures kenn woowu ma. dix heures et demie kenn woowu ma ma ne waaw lii nu mu demee nii onze heures kenn woowu ma ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah de d'habitude woo ay booru maximum neuf heures et demie dix heures ñu woo ñu mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi greffier bi nekkul seen dossier new fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi juge bi arrêté audience bi. juge bi interpellé substitut du procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu ne benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement c'est un comportement qui est inadmissible inacceptable et intolérable et je vous le dis vous êtes en train de jouer avec le feu ce pays ce pays en a marre dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jël péché la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñu def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñu jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur ñoom duñu def dara ñoom ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëliw lañu ñoom def ñu daal ma bëgg nag wax jooju ñu teg ko ci suuf fii menace amu fi fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat lu ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Balla Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xamee di dañee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woyee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a di wax ne ni que Barthélémy Dias moo ko doon xam ne ni day ñëw tribunal le 10 novembre waa maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut nga leen kaay leen toog yow kaay toog yow yow toog ma ñëw toog comme ne da nga may atte ma xam lan nga fiy atte lan ngeen di fi atte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka dama ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te waxtu ju dëppuwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi leen maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy bu ñuy bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen ngeen ngeen ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral point net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon mi ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l' intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST DST mooy direction de la sûreté du territoire su ma benn mag bu baax moo fa woon ñu koy woy commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bëggatuñu Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen naka ngeen mënee toog tey ngeen da ngeen man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoru moon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppawul ak dëkk mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg lépp na nga lépp nous sommes en penal lii penal la penal amul lépp léppoon pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar bu def ko fetel bu ma fi jot doon wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture jox naa leen lépp damoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey mi ngi commissariat central mi ngi sûreté urbaine ñoom suñ taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu ñu doon way Jaga ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves pour wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da ko dugal sa suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooy sa xel na nga fooy sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier dossier bi euh, mën naa juuma <laughs> ku ko nar a atte saa mën naa juum mais je pense que kooku woo juróom bu jigéen ci dugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte munoo bëgg bu mel ni fusillade de Mermoz sacré te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen gënaat nañ vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles hmm? yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur te ñu xam fekk booku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet ti ti tir nii moom kese rek 77 douilles c'est au moins cinq chargeurs xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax matul sax 20 pour cent wu xeex bi nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek parti Dias ak ay garde du wante parti bu fi nekkoon jamono boobu joroon ay oto joroon essence am génne xaalisam fay ay samba booy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable bu ci dugal loxoom kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn ku ci amul kenn ku ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi nervi yi amul kenn ku ci condamné un jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblement illicite ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun lu ñuy woote Sénégal mooy résistance comme lu ñu woote woon mars résistance moom la ñuy woote waat tey résistance parce que dama ne ku xamul bur dee na nga xam ne ni pour wuti wuti ji na dépense waaw parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre. ginnaaw suba ginnaaw suba la dinaa dem tribunal. wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di. layam layam yi di layam layam yi noonu suñ fa toogee di layam layam yi laa wax man su ko gaañee xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie te damay dem damay dem campagne lu may bañ rek parce que man duma a kenn man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xoolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer dama bëgg a wax ci leer te ma ba tamit parce que je je xam naa lu ñu xam naa lu ñu namm ci dossier bi xam naa lu ñu ci namm parce que wax naa ko sànq ci tuba nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi. ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee nañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier bi dossier bi joxewul dara ñu ne bon maintenant ñun nañu jéem a xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a gaagal ñu ñu mën a galgal Bart mbañ a mbañ a nekk maire de Dakar ñu yuuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gaa yi jël loolu teg ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxut nañ jéem a xool ñu jëlee mairie de Dakar ñu sayal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gars yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom nag seen yaakaar dafa tas seen yaakaar dafa tas ci coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ñu ma tànn pour man ma nekk seen candidat fii département de Dakar mairie de Dakar lu may dëkk man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à 8 heures du matin. le 5 novembre ñu ñëw suma kër indi seen këyit këyit bi ah, ku ko xool da xam ne ni lii ab mbiru complot la.